yéen ñi di ñëw ci màggal gi di màggal si di dalalu gan ñëw laaj leen seen numéro téléphone dem ak ci béréb def leen na ko sudul na ko sudul noonu di bàcculu bàyyi leen ko ngir bàcculu baaxul boo ko bëggee tegal ko ci farata si ak sunna Muhammad loo ca mu def jaamu yàlla jaamu yàlla ak mooy yàlla du benn jaamu yàlla moo tax ñu indi ñu fi indi ñu nelaw ndax moo tax mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni wàcce gumu leen lu may jaamu ma te jaamu gi koy jaamoo ci la ñuy amee jàmmoo bàyyi leen iri iri baaxul laa taqrabu sina bul jege la wax nga dem di laal yaa bon yaa salte bis boo borom ba da nga xam ne jaamu moo gën mooy wasalaamaaleykum wa rahmatullah